mbega na mayonilo jërë ngeen jëf mbokk Leewtoo TV comme niñ koy tàmm di defee tey ñu jogaat jël sun euh, caméra ak sun micro jéem seetiwaat beneen champion tey nag ñuy dajal ñuy dalal benn champion boo xam ne nii kenn dootu ko présenté ci làmb ji ñëpp xam nañ ko euh, ki ni dalal mooy Modou Dia Modou Dia maa ngi lay nuyu waaw subhaanallah walhamdulilah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala illa billah maa ngi lay fay di la dalal mm-hmm. di la jox sa wàccuwaay yow ak euh, équipe bu Leewtoo bi yëpp mm-hmm. jërëjëf euh, ñu war a waxtaan ak moom nag ci fusion bi am ci yoof xam na ne ñaari kii moo fi nekkoon mais finalement ñu fusionné boole seen doole pour gën a am doole ci làmb ji dinañ wax également ci làmb ji nga xam ne ni moom la wa moo war a am ci digganteem Thiat dinañ wax également ci adversaire am bii di caat pour ñu démarrer rek Modou Dia auparavant yoof ñaari écurie moo fa euh, amoon finalement ñu gis ne fusionné ngeen lan moo waral ngeen fusionné d'abord waaw mbooloo mooy doole te lu dagg moroom ma lay seeti te ñun ñëpp benn lañ xëy na turu ñaari écurie fa nekkoon mais ñun ñëpp ñoo daan bokk di entraîner bi ñu demee ba si ci ndaw ji mag ñi booloo xoolante xam ne lii kat jaaduwul ñu def li jaadu dëgg la boobu lan la leen mën a apporter waaw lu rëy euh, d'ailleurs suñu première sortie def nañ ko ak capitaine Dina suñu borom jox ko ci ndam mu doon ndam lu si ci écurie première grand combat première sortie ñu am si ndam donc dañ koy sant suñu borom quoi. Mm-hmm. oui gisoon na ne Yoff souvent day am ay combat yu bëri est-ce que yaakaar nga ne loolu mën ngeen ko am ren. incha waaw am nañ si yaakaar bu baax a baax ndax xam nga mm-hmm. làmb moom dañu ubbi rek ñun mm-hmm. benn combat lañ jot am mais buñ demee ba si. Euh, après koor gi am nañ si ay combat yu bari yoo xam ne tegu na suñu kanam ñu ngi ñaan suñu boroom defal ñu si ay ndam ñi nga xam ne amuñu combat itam yàlla jox leen combat ba noppi jox leen si ay ndam. d'accord gis également jëloon ngeen fi suñu lamb mais finalement ngeen perte ko lan mooy waral ngeen perte euh, trophée boobu. waaw euh, xam nga xëy na loolu moo waroon am mais bon perte biñ ko perte tamit euh, tey ji mën nañu ne saison bi jàpp nañu ne yeggul xëy na. bon waruma wax loolu sax mais. Euh, bu saison bi demoon ba jeex takk amoon nañ yaakaar ne man nañ ko jëlaat mais fi saison bi yam mhm. bon ñu perte ko donc kon loolu moo waroon am ko mhm. ñu ngi maa ngi félicité ñu ko jël. Mhm. di leen encouragé di encouragé waat suma waa écrit di leen wax ne xëcc bu daggul dékk nañ ko liggéeyaat incha allah mën nañ ko jotaat. Mm, d' yoo Yoff instant yan situation la nekk commencé ngeen seen entraînement wala door a leen ko. si ñun depuis euh, ñu wax ne saison bi na ubbi la ñu woo euh, regroupé waat ñu ñu commencé nekkaat di entraîner en groupe. parce que comme dañu doon bañ euh, rassemblement bi te ñun ñëpp xam nañ ne ñun ñu ministère de la santé waa Yoff la kon donc ñun dañ si war a jiitu ñu bañ le woon ko ko mhm. mais bi ñu woowee ne lamba ubbi na si la ñu coach oowaat président bi oo ñu ñun ñëpp ñu rassemblé waat nekkaat di entraîner comme d'hab mm, d'accord kon instant yi groupe Yoff yëpp ñu ngi entraîner ensemble Malick Niang y compris waaw waaw Malick ngi si biir bu baax Malick Niang caatu Yoff caatu ngéwël gin mhm. ainsi de suite sekk ndaanaan yëpp ñu ngi entraîner daal d'accord lan mooy seen objectif ren. suñu objectif mooy gagner suñu ay combat yëpp. suñu ay combat yëpp bu ñu gagner ko nekkaat la numéro un. d'accord ñu jógee ci sujet boobu attaqué deuxième sujet bi moom mooy sa combat bi nga xam ni moo war dox ci diggante yow ak yow ak euh, Thiat mi nga xam ne ni moo nekk écrit Boy Bambara d'abord est-ce que combat boobu am na date wala. waaw am na date le 11 juillet. le 11 juillet le prince moom moo ko tëgg. waaw prince PABC event. d'accord le waaw des na ay mois rek. Euh, ci yan situation la Modou Dia toll instant bi nii. waaw ah, maa ngi nii xam nga man moom sama àdduna ñëpp xamee nañ ma benn affaire Modou Dia entraîné jaamu yàlla si loolu laa nekk donc mhm. euh, am naa yaakaar ne dara duma ma bett. Mhm. maa ngi si maa ngi ñaanal suma adversaire aussi mu revenir vite. Mhm. ñëw ñu waajal suñu koom xam nga. yàlla jox ma ndam si kawam. waaw gis na ne est-ce que yow instant yi sentir nga ne yow pare nga.

Euh, yàlla defal nañu technique dinañ indi tactique être endurant ak euh, fulla bu mat sëkk bu ar bi soufflé ñu def li ñu war suñu borom jox ñu ndaw si comme suñu adversaire caat du n'importe ci comme ci arène bi yaa lan lan eh, lan ngay ban stratégie ngay teg pour mën a am ndam ci kawam. waaw stratégie xam nga loolu sama plan la moo tax en ce moment nii man ma ko dévoilé mais. Mhm. maa ngi di waaj ak ñi ma war a àndal di waaj eh, di di di lancer appel suma ay mbokk yëpp. di leen wax ne am naa combat ak suma entourage ak su ma ay dëkkandoo ak suma ay rakk yi nga xam ne fu ma jógee ñu jóg. Mhm. ak staff bi yëpp di leen wax ne maa ngi waajal komba mhm. man ak caat la 11 juillet nañu nekk si li ñu nekk suñu borom jox ma si kaw. mut mujjee souvent da naan mbër mu sérieux la pourquoi sérieux boobu nekk ci waaw xam nga dama bàyyi lépp ngir ngir làmb donc dama ko war a jox ak xam ba mu mat mm-hmm. bu fekkee dama koy caaxaane rek euh, man mm-hmm. naa bàyyi parce que dafa am ay nit yoo nga xamante ne dañu doon sonn dañuy sonn si man mm-hmm. kon donc waruma leen woon ñàkk fayda waruma leen woon ñàkk fulla dama leen di woon fulla ak fayda jom ngor ba xama la nga xamante ne suñ borom loolu la nam sama carrière rek ma terminé ko foofu d'accord sa préparation bi est-ce que yaa ngi def physique mais est si soir bi nii le ñu dem géej physique bu ñu waree physique écrit bi ñu physique bu ñu waree contact ñu contact mhm. gis na la ñu ngi ci weeru koor malgré ça yaa ngi continuer say entraînement est-ce que du danger nga woor ba pare di yëkkati yenn weñu diis yi bon am na am na am nañu habitude bi moom parce que man depuis ma commencé entraîné ba tey ñun lii lañ nekk di liggéey kon donc gisuma si benn gravité pour man dinañ def ñëw maintien raay li ñu war a laaj mm-hmm. après rupture bi ñu dem géej ànd ak gars yi entraîné quoi. Euh, sa combat souvent xeex bi du bëri da ngay favoriser jàpp. daane est-ce que pare nga pour xeex caas caat. waaw nga caat moom lu ma la waxoon rek. moom lu mu lu mu combat bi du moom mooy décider. man dama nekka ndaw war a dem suma yoon. Mhm. am foo xam ne war naa fa yegg. Mhm. kon donc combat bi moom sama adduna la quoi. ah kon yow combat bi da nga dem daroo dem pour xaar da ngay jëli da ngay jëli cat. combat damay dem lépp lu nga xam ne bés bi laaj naka rek. Mhm. ma def loolu. waaw mais est-ce que pare nga bu caat taxawee nga jëli ko. non caat aw lu may xaar si moom kon donc man maay xale man maa man moom ñun ñaan ñëpp dañ tollu si yoon di dem mais man li ma gëm mhm. caat nekkul mbër bu nga xamante ne dama war a sax yàgg ak moom mm. parce que dafa am ñeneen ñoo ma bëgg a bëre ah bon da nga xeeb caat kon non du xeeb mm. du xeeb ambition la rek da yaakaar ne caat mënu baare mais caat bokkuñu si dara yàlla moo yor ndam di ko joxe mais bokkuñu si dara kon la maa gën a féete xale maa dàq bëre maa ëpp doole dogal bi nag suñu borom moo ko yor maa ngi koy ñaan suñu borom barke waxtu koor gi weeru koor gi mu jox ma ndam si kaw caat. bokkoo ak caat c'est-à-dire caat da ngay dikk rek jaar jàll. ah loolu laa gëm loolu laa bëgg incha allah rabi. pourtant caat xaar caat du mbër mu yomb de. caat loolu moom la engagé mais man li ma xam. Mhm. ah li ma gëm. na ma xaar lépp maa koy defal. maay mhm. ñëw maay bëre maay indi mbooloo mi maay ambiance maay léwtoo maa koy dóor maay daan si kattan suñu. ñëw pour dóor ko daan ko incha allah <laughs> sañ ngaa wax ci caméra bi nii da ngay dóor caat mu daanu. dama koy dóor daan ko. ah bu amul sens sax ma dóor ko mu daanu. d' accord gis naa ne depuis quelques années moom mi ngi États-Unis di entraîner yow nga nekk fii est ce que entraînement yi du am différence. waaw c' est un peu temps tamit mu nekk États-Unis toog ah nu may déggee mbër yi dañuy dem toog ñëwatuñu bon. ah da dafa dem toog bon ah c' pas mais. maa ngi siy bu baax a baax mais du tee tamit lépp lu ma war maa ngi ko siy def. maa ngi mm-hmm. ñaanlu maa ngi entraîner maa ngi ànd ak sumay mbokk oui Thiat souvent day publier ay ay vidéo yaa ngi koy gis. non du mooy suivre ay kii. Ah. lan nga xam ci Thiat. Thiat xaw ma si moom dara. ah xamoo ci moom bëreem. <laughs> non bëre bëri bëri caat moom ñëpp xam nañ ko mais xam nga comme dama nekk di wàccaay ak moom. amul dara lu may wax si moom lépp dama koy traité ak sama staff écrit. waaw mhm. mais xam sa adversaire baax na quand nga jàng yan force la am lan mooy faiblesse am.

koy waajal lu lu bees la de ma dégg ko ci mbër. ah mais euh, <laughs> nouvelle technologie la. ah c'est-à-dire dafa nekk mbër moo xam ne nii dafa bëgg dépasser dafa bëgg euh, jël ci réseaux sociaux yi def ko favor def ko maanaam yëfi boppam pour mën a jàng ay ay. adversaires mais loolu c'est très normal mbër da pare techniquement physiquement tactiquement mystiquement aussi da pare da pare xama Euh, da ngay presse si niveau psychologique nga xool si niveau internet bi parce que nit ki. junja rek doy na. Euh, doy na wax quoi doy na borom xel. donc tamit caat man su ma koy seetaan su ma koy borom bopp bu baax laa bu fekkee dafa nere signalé gauche jàdd droite dinaa ko xam bu fekkee dafa nere def brute dinaa ko xam. donc maa ngi koy suivre daal. solo la euh, parce que di dajeek benn mbër xam ko. xam lan mooy psychologie loolu dina foor la ci yow le jour ji nga xam fan nga koy jaar mais loolu rek duñ ci yem caat xam nañ ko ci victoire la jógee victoire boo xam ne nii yëkkatiwaat na ko yóbbuwaat ko fu sori loolu est-ce que da nga ko sóoraale. xam nga caat champion la. Mhm. booy xool moom moo ñu jiitu si làmb. Mhm. Euh, moment bi mu ñëw ñun ñëwuñu ko. Mhm. bu demee ba waat ak armée ñëwaat di bërewaat ak man donc kon mu ngi ba tey mu ngi si palier quoi. xam nga mu bëre armée daan ko man aussi ma jóge si ay victoire yu am solo kon donc c'est un combat bu nga xamante ne ni soxla na ko soxlaa naa ko jàng nañ ko bu baax a baax mais nag li si armée du si mot ja lan lan mooy lan mooy différence su Modou Dia ak armée. que armée ak caat ay petite taille lañ. Ah. te man dama man man man man maa maa maa ëpp caat wet. maa ko sut te gëm naa ne maa ko ëpp kàttan gëm naa ne maa ko dàq bëri kon la reste lan la damay def fulla ak fayda rek suñu borom jàppale ma. kon caat lan la am ci combat bi. caat ah xanaa ñëw daanu. <laughs> d'accord li nga wax am na solo trop. loolu man moom lu mu koy dégg ci mbëri di ko wax euh, bëriwul. loolu baax na di benn affaire la boo xam ne nii ngay xam sa adversaire di ko étudier ci plan yëpp loolu je pense que bénéfice la ci mbër mi wala ci athlète bi mais fu ñu jeexalee sunu interview euh, euh, date bi soreetul mystiquement fan nga toll. non loolu moom ñi si war a nekk ñoo ngi ci. ah mbëri souvent loolu lay wax ñi nekk mais ñoom ñooy wutal seen bopp yow est-ce que. no xam nga mënoo nekk fii nekk fële am nga en ce moment na am nañu ko nga xamante ne fii ñu toog di wax nii mu ngi Guinée wala mu ngi feneen ak feneen di dox lool. kon daal le jour ji Modou Dia dina indi bu doy. waaw waaw làmb kenn du ko caaxaane fola waaye ku daanu rus. mystique lan lay peser ci le combat. ah ça dépend rek si nit ku nekk ni nga ko jàppee quoi. ça dépend si ku nekk fi mu toll si yow. mais am na solo si làmb du ma yow fan la mystique toll. du ko caaxaane. d' accord lan ngay tàggatoo internet Leewtoo waaw waaw waaw di leen di leen di baalu ñëpp ak di leen baal ak di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal mboolem julit mhm. di ñaanal sama maam ju nga xam ne génn na àdduna bu yàggul soxna Ami Faye yàlla yàlla yërëm ko ak mbooleem ñëpp ñu mu fa fekk ak sama rakka ji Mbay Njaay ak sama xarit ba Mouhamed Bari mhm. ak mbooleem néew julit nga xam ne génn nañ àdduna di baalu ñëpp ak daal di lancer appel aussi mhm. di leen wax ne la 11 juillet yëpp di leen ñaanal si événement yi ngeen jëm xam nga ngeen am si réussite maa ngi lancé appel nag seen waa ji su ma jógee si combat bi mu jox ma bu rëy ndax xam yaa ma gën a xam dina la ko jox kontaan naa si yéen jërëjëf ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax ci disponibilité bi di remercier internet u TV yi doon suivre di leen jox dig daje ci yeneen rendez-vous incha ngeen jëf